ibrahim mooy ibrahim ki nga xam ne dafay dëkk ak soppeem ba pare di namm soppe bi mooy ibrahim yahwa dana sopp muhammadan muhammad ibrahim mi nga xam ne bëgg na yonent bi salallahu alayhi wa sallama wa amra wujudi lkawni gayru muwaqai ibrahim mii bëgg yonent bi salallahu alayhi wa sallama te fekk bàyyi mu ne mbiri àddina bi sax tàbbeegut àddina amagut inna nii qabla albaraaya xubbuhu shuglal janaani bàyyi nee na man maay ki nga xam ne njëkk yàlla di amal mbindeef yi mbëggeel yonent bi moo doon suma soxlaay xol bi man ma kooku fan la neewoon moo tax dafa mas a bind benn xasiida taalibe yi am bayti buñ ciy laajte